deuxième partie matinale avec ak suñu thème. Hmm. Saint-Bat di seen matériel bâtiment ku ne dégg na ko ci réew mi entrepreneur yi ouvrier yi ba ci commerçant yi di entreprise bu yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum batiment tabax ak njaayum terrain yéen ñi bëgg a tabax seeni kër ñëw leen fii ci Saint-Bat lu ngeen soxla ci ciment ak nu mën a toll ci xeetu ciment yépp am na ñu feex béton suuf ak brique ba ci matériel électricité yu garanti te wóor am nañu espace lumière yu dul gis feneen ay lumière yu rafet lool oh ma lii rek wàllum peinture ñoo ci teg loxo xeetu peinture bu ngeen dégg ci àdduna bi boo ñëwee fii ci seen Simbat fekk ko fi ci wàllum plomberie nous vous donnons tous les accessoires pour vous mettre une installation impeccable Simbad seeni carreau de très bonne qualité carreau bu bëgg am na fii ci Simbad ci qualité ak quantité ngir taaral sa kër fii rek la ci Simbad ñoo ngi fii ci cité Noflaye après Sangalkam ci route de Bambilor téléphone 33 866 47 98 ou 77 201 83 93 wala 77 374 67 80 98 wala ngeen woote ci 77 056 59 76 Simbat le choix de la qualité. Imbat di seen matériel bâtiment ku ne dégg na ko ci réew mi entrepreneur yi ouvrier yi ba ci commerçant yi di entreprise bu yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum bâtiment tabax ak njaayum terrain yéen ñi bëgg tabax seeni kër ñëw leen fii ci Imbat lu ngeen soxla ci ciment ak nu mën a toll ci xeetu ciment yépp am nañu fer béton suuf ak brique ba ci matériel électricité yu garanti te wóor am nañu espace lumière ay ca ñu àndaat ak yéen ci seen matinal avec seen deuxième partie bi nga xam ne nekk day ñeel li nga xam ne moo di ab thème d'actualité maanaam bu nekkee un phénomène sociétal bu ñu war a mën a waxtaanee wala leneen la leneen ci biir tey ñu indil leen ci li nga xam ne moo di wàllum volet bi nga xam ne nag defaat na surface biir Sénégal rawatina biir Dakar ñuy gis saa ne rek xale yi di ko utiliser laay mu nekk loo xam ne CCC mënuñu mënuñu nekk ni lu baax la mënuñu nekk ni loo xam ne dafa daal di nekk un bon exemple à suivre euh, ko du loo xam noonu du loo xam ne aussi bu fekkoon sax xale ni ñu bëggee drogue noonu lañu maîtriser consommation bi ñu mën a wax laay volet bi nga xam ne ñëwaat na ci biir dëkk bi rawatina ci xale jigéen ñi waaw xam nga donc affaire bi rek affaire bi moom mooy euh, ki nga xamante ne ni moo koy indi ak ci kin ko jàppee ak kin koy jox mm-hmm. kooku buñ ko téyee mu fexe ba indi ki koy indi fii kooku ñu xool nu koy lijjantee ay biram mais nag euh, ñoom ñi koy utiliser lu ci ëpp tey xam nga manque manque kilifa manque kilifa maanaam. paan kilifa ñàkk kilifa paan kilifa. maanaam di mel ni. camion bu daw ba yoonu Mali bi ci diggante kaay ak Mali. Mhm. mu paan ci digg ba loolu problème la. xale yu jigéen ñu si ëpp danoo paan kilifa. Mhm. mais nag paan kilifa weesuwut nga nekk nga juddoo ci quartier. Mhm. màggay fa. defee fa sa xale defee fa sa lépp. dem ba benn instant nga teg sa loxo mu fees rek nga ni non man léegi. dépassé naa nit ñi quoi dépassé naa waa koñ bi léegi yow li ngay defati léegi. Mhm. fi ngay fréquenté boo demee ba maanaam nga chaque guddi ngay fréquenté fenn chaque guddi ngay fréquenté foo xamante ne nii tey. ñeneen ay yeneen nit ngay mhm. gis yu bokkut ak ñi nga daan gis. Mhm. léegi da ngay obligé temps bi ngay def ci yoon bi pour ñibbi si sa kër ak déranger bi ngay déranger seen waa kër léegi yow da ngay obligé wut benn apartement léegi appartement bi ngay wut. léegi yow yaay lijjanti sa bopp appartement bi du mu gàtt gàtt di nga ko fay cent mille. Mhm. léegi cent mille liggéeyoo sax guddi ngay génn léegi cent mille weer ak morom ma daa jege. léegi da ngay obligé ubbi sa dibiterie bu mag. waaw. <laughs> dëgg la léegi léegi nag chaque guddi nga gis xale bu ku góor ku ñëw mën ci yow benn cinquante mille ngeen fanaan muy dem. léegi nag yow dem nga ba instant bi nii nii tey. guddi bi di nga am lu ëpp li nga fayee sa appartement. waaye doo ko fekkee mais sa yaram du ko fe yaram njariñ ñoo fekkee. ñoo fekkee moom léegi nag da ngay obligé drogué wu. Mhm. pour nga am ñeenti gaa wala juróom. Mhm. yoo xamante ni dañuy mën a def ak tëdd ak yow pour nga am deux cent mille wala deux cent cinquante mille yaa ngi lekk xaalis bi mais sa yaram du ko fekkee. Mhm. chaque jour nga tëdd ak koo xamante ni nii xamoo ko. lu muy bàyyi ci yow. léegi nag su da ngay obligé drogué wu pour que nga mën a encaisser. ñeenti nit a ñaar. Mhm. léegi nag ñooñu ngay encaissé ko ci nekk bu la joxee da ngay mën a daas léegi nag dëkkatuma sunu koñ mënatoo dund li waa koñ bi dund parce que waa koñ bi mhm. daa mel ni rythme bu mhm. dëkkandoo dem am deux mille trois mille. mu yem ci yow nga xam ni lii man ah, ci laa yem. li nga am nga utiliser ko maanaam li nga am nga yem ci. mais da ngay gis ko man gis naa ñoo xamante ni dëkkatuñu ak seen i waa kër. parce que xam nga lan moo tax parce que dund bi ñuy dund. dund bi ñuy dund moo mënta nekk. ak maanaam mënoo mënu ko mënoo koo dund ak sa famille. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que problème bi mooy heure bi ngay ñëw du arranger seen mm-hmm. fajar ngay dugg si di génn guddi. te parfois am na ñu lay gis ñoo xamante ni ci. waaw man moom daanaka dama ciy gis ñu bari ndax man génn katu guddi laa damay dem di liggéey man sama liggéey lu ci ëpp guddi la. mais problème bi mooy jigéen boo bëggee suba. sa der rafet. yaa koy liggéey waaw yaa koy liggéey xam nga dama xam nga dañ na ñoo xam ne ci koñ bi de waaw léegi nag waaw te uude sax ko daal mhm. yàqul der. dèjà dañ lay ngay dem ak ñëw rek duñu xam lan ngay. léegi nag yow dem waaw léegi dem ak nag soo commencé di di. waaw léegi dem dem ak ñëw boobu noonu ngay dem ak ñëw yow fexeel mu doon dem ak ñëw bu baax. lu baax waaw waaw ba pare ñu ni la diw diw baax na naka mbokk ya wax. waaye subaana ma diw baax na ñuy ciipatu. wala ñu naan kooku de ñoo xam ne tey dañuy génn guddi ne ñoo ngi liggéeyee hôtel ñoo ngi liggéeyee fii amaana liggéeyee ñoo xam nga lu wuti. Mm-hmm. loo xam ne tey jii c'est boo bëggee dund loo xam ne moo sut say moyen. moo sut sa am à chaque fois da ngay def loo xam ne nag dafa ñaaw génération bi ñoom ñoo bëgg lu nekk ñu am. mooy ils sont matérialistes ils sont matérialistes en na mm-hmm. la na facile ci ñoom rek. dëgg la am facile. Mm-hmm. mais ñoom jàpp nañ sax loolu. dañuy bëgg tout le temps ak am ko lay sàmm waxee loolu la parce que déjà sa yaram du ko fekkee. Mm-hmm. te en plus maladie bu nekk mun na la dab. parce que feebar yi dañoo bëri. yaa ngi comprendre les maladies sexuellement transmissibles. les infections sexuellement transmissibles lépp lépp a ngi ci. yow da ngay jàpp que ni ci da ngay bëgg waaw ñëw naa gis yow. ñoom bu ñu paree dañuy tuddee loo xam ne anti anti grossesse la rek ñoom pour ñoom pare nañu alors que yow IST moo gën a bon ëmb. Mhm. maladie sexuellement transmissible yoo xam ne sa deret lay nekk jaxasoo ci yow. Mhm. dem ba dugg ci sa loolu mënatoo koo faj.

dafa bëri te ëpp na lool ci ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi mm-hmm. dafay dafa am ay secret yu yi dootoo ko a xalaat di nga def di ko utiliser nekk beneen monde ba loo xam ne amaana bëggoo ko woon def muy rey bu na jëf ji wees na ba a ñaaw ñoom sax bu fekkoon ñu si ñu si bari dam ni dañuy yem ci volet bi rek mais léegi mhm. jigéen ñi tuxu mboon mi maanaam comme mbàccum gerte dañuy tux boon dañuy tux Marlboro dañuy tëdd dañuy dañuy dañuy def n'importe quoi dañuy diw mais déglu ma nga tux Marlboro sax si jigéen xam na baaxul mais moo tax ne nga tux trop xam nga drogue déjà li muy def ci yow xam na léegi dina def ci yow boog ay conséquences yoo xamante ne. yow yow ngoone yéeg yi. da ngay foog day gis li ñuy dessiné sax si seen kii bi ni muy def sa poumon yi saxaat bi nga xam ne yow ko utilisé. mais képp koo xam ne ñu koy yem dañuy xam nga jigéen lu ko li ko war mooy li ko war mooy mu toog ci këram Mm-hmm. samedi mm-hmm. samedi côté Ravin bi nii dama dama demoon ba jour bu may dem defar sama boobu yooyu suñu mariage bi. ma dajeeg benn xam ne c'était c'était un politicien sama nga ko si la ma dama sa tuñu daa ñuul. ko kon de kon de kon de de ba jombi na. il est temps ma seeti king cosmétique. waaw yëpp moom comme ñu ma jaawale ak ay doxkat koy daal di seet. parce que euh, am na benn jour dañoo am benn ñu ñëw joué si euh, euh, Ravin ñu ànd ak benn xale bu jigéen quoi ñooy ànd di liggéey ñuy waxtaan noonu ñu ne ma naan xam nga man dama am ay kàllaama ma naan booy yi de ay dibiteri yu mag lañ yor rek booy bi moom xamul sa liggéey jëlee daan ma daan ni mbuur kay ak a ay dibiteri <laughs> xoolal benn benn waay jékki-jékki xool gel bi ba mu yàgg ni ko yow am nga sens mu ne ko mu ne ko sens si lan mu ne ko yow xamoo li ñuy wax fii mu ne ko waaye mu ne waa xam li ñuy wax mu ne ko am sens nga ba pare kooku xamul liggéey ji di riir kooku mm-hmm. maanaam ñoo ñoo ko génnee jour boobu mm-hmm. moo tax man maa ko yóbbuwaat ba seen biir kër mu dugg yaayam génn ma ne ko mu ngi nii xola dalay wan ni la rek xola day am ñoo xamante ne nii guddi mm-hmm. ba pare léegi clandestin yi moo gën a bëri léegi day am jigéen ñoo xamante nii dañuy naan sàngara dañuy tux boon dañuy tux Marlboro dañuy sex vole léegi yow ñi xeeti xeeti mandite googu yëpp nga dajale ko ci jigéen waxuma la dix góor mais mën nga jël quinze góor doo am du la du la sa du maanaam doo ko sentir sax mais problème bi mooy. Mm. mais après quoi léegi yow sànq fi ma dem yemoon laay ñëw léegi jóge nga seen koñ léegi lu yee nga appartement. Mm-hmm. léegi guddi gu jot am na koy indi waaw yaa ma gën a xam waxtaane ko. Mm-hmm. waxtaanu waaw. ça va salaamaaleykum waxtaanu biir ne. <laughs> daf ko waxtaanu tëj bunt léegi suba indi nga keneen. Mm-hmm. léegi seen waa kër jékki-jékki ñu gis la ngay indi xaalis. ba pare nga boole kook diw changer sa teint rafet. Mm-hmm. waaw dama mignon jamono foofu la toll léegi nag jamono jamono fi mu nekkoon la nekk ba tey. Mm-hmm. nit ñi ñoo koy changer nit ñi ñoo changer àdduna. Mm-hmm. mais jamono fa mu nekkoon la nekk ba tey li amoon ba démb moo am tey. mais jamono mooy changer. jamono kii nit ñi ñooy changer jamono. mais jamono mi maanaam. li yàlla di digle woon ba léegi mi ngi fi jigéen balaa baax. Mhm. day toog ci li saa neex naan toog pooju ndeyam. si peggam. lu ko ndax lu lu ko mais imagine da ngay gis xale bu ndaw. léegi xale yu ndaw yi ñoom ñooy vidéo seen bopp. xale bu ndaw ngay gis mu dem yor appartement luy mhm. apartement yow mii yaayam mu lay jox ay cinquante mille. ay vingt cinq mille boo amee problème mu xew. mu jox la cent mille ni la yaa xewal wala cent cinquante mille fooy liggéey nga ne ko ci benn kii sa doom fi muy liggéey dèjà war nga koo xam xam sa doom ci li muy dugg ak ci li muy génn ñu ne doom ja baax na ñu ne ñu ne ñu ne xawma nan la ko si olof di waxee ku ne ku ne ku ne ku ne ku ne doom ja baax na xawma nan xool ndey ja xawma waaw léegi yow yooyu problème yooyu yëpp sa doom di ko def léeg-léeg mu indi la xaalis laajoo ko fu muy jëlee ba pare mënu laa wax ne lii laay liggéey mhm. ba pare sa doom chaque jour nga gis ko toog maire yi xam nañ seeni doom bu nu xam bu xam na ñu nga xamante ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi sëy ak ñi nga xamante ni sëyuñu waaye. Mhm. góor ñi ñu ngi ci seen kaw seeni yaay xam nañ ko bu baax mais li leen di jox mooy tëj seen gémmiñ léegi changé na time indi na cinquante mille deux cent mille jox la. Mhm. indi na téléphone buy jar deux cent mille. Mhm. téye ko su takk na sëba buy jar trois cent mille. xale bi de léegi daa bell day liggéey lan lay liggéey. léegi doo dem xool li muy liggéey. xamoo ko wala bu fekkee ba pare li si gën a garaaw mooy da ngay ñëw. daa liggéey woon 5 heures du matin laa wàcc wala 6 heures. des sax mu ne bu xale di sax mu ne ko day nelaw léegi la wàcc. des fois sax mu ne ko yaay damay fanaan tey. Hmm. léegi sax man sama doom fu muy fanaan. léegi nag man dem am na ñoo xamante ne nii seeni doom fu mu dugg dinañ ko lijjanti mu leer. Hmm. mais léegi Sénégal léegi xam nga dëkk bi daa doy waar. Hmm. xaalis moo amul. léegi bu ñu lay jox cinquante mille yow doo lijjanti cinquante mille fu mu jógee. bu noppil ma def li may def kañ xam dama préféré saa yi ma wàccee damay dem njibbi korog wa nu mu tëdd sa guddee ñu wàcc fii sama ma woo yàlla mais di la woo di la woo ma ne ko nag mais loolu yëpp yéeti loolu yëpp xamalal la <laughs> ko <laughs> yaa parce que da ngay nekk yaay suba mm-hmm. waaw te yaa bëgg nga ko xaw ma nag boo ko bëggul waaye bëgg ngaa nekk yaay suba mm-hmm. waaye tamit sa yaay ni mu la def ba nga màgg. Mm-hmm. fexe koo def say doom ba nu màgg. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. nga teg leen ci nit mel na nu ko naqari rek bëgg doom mais tey da bëgg sëfa. da bëgg saa mënoo ko am nga bëgg. benn téléphone bu cher mënoo ko am. nga bëgg sinap bu bu bu rafet. bu leer léegi nag. sinap complexe gi nag boo yoroon téléphone bu bu ndaw sax doo ko génnee. ndax nit ndax nit yor na 11 am da ko aar ah, ma photo aar ah, ay yow. waaw complexe bi nit ñi ñoo rëy. jigéen ñi ñoo rëy léegi imaginaire li ci salaat. da léegi léegi imaginaire tey. yooyu yëpp amoo ko. Mhm. nga ni man lii dinaa ko am far force. Mhm. wala nga bëgg siiw ba naan tuddeel ma bis nga ñu tuddeel a bis. amoo loo ci yóbbu nga wër góor ñi. Mhm. léegi nag te fi jamono toll nii. fi àdduna toll fi gaa yi toll fi mu toll nii doo lekk seen cent franc te ñoom lekkoo. ñoom kay moom da ngay. ñamal ma ci hamburger bi kii xaw ma na nag lan lan koy wax. Mhm. mais problème bi lool la parce que. fa la roq fa affaire bi la toll léegi nag yow miy jigéen. laay wax ak yéen de. yow miy jigéen. Mhm. yow yaay yow yaay xool li la arrangé maanaam sa suba. Mhm. parce que dañ naan téléphone bi bu daanoo dafa sensible day toj. mais jigéen a ko gën a sensible. parce que téléphone bi yaa ko mën a am. mais jigéen. ginnaaw moo gaaw a yàqu. ginnaawu góor sax jigéen sax góor sax sensible na mais ci benn côté jigéen moo gën a garaaw yow de sa yaay defoon na fi lii. sa sa image da lay topp ba sa VS. voilà léegi nag léegi nag yow mi ku jigéen ki. soit yaay bëgg lu baax rek dimbali sa yaay ak sa papa ak sa famille. man du ma ne dimbali sa yaay mais nga dimbali sa bopp parce que sa yaay ak sa papa liggéey nañ fi loo xam ne ba pare waaw musuñu laa tudd bañ teg ci cim mais yow ah. mi nga xam ne yaa war a jur tey imaginer sa doom ñëw ñu naan ah, yow kan moo yaayam jib kii de moo fi defoon nii moo fi exposé woon boppam ci réseaux sociaux yi moo fi jox nangam ak nangam boo daan indi say doom way boo xamante ne dafa fay dama si dit que yow li rafetal sa ginnaaw yaa koy liggéey mais pas sa yaay ndax sa yaay ak sa papa seen wàllu wéy na xanaa xamoo bëri nañuy exposé seen bopp ci ci réseaux sociaux yi instant bi maanaam nit ñi ñu bëri ñu ngi leen di gën a wane ci mais daam ñoo xamante ne nii bu ñu leen bu ñu nekkee ci benn côté. di mm-hmm. liggéey. Mm-hmm. jékki-jékki exposé seen i yaram ci ci ci seen i taat ak seen yooyu ci ci ci réseaux sociaux yi àdduna bi yëpp gis leen. Mm-hmm. ñooñu dañ leen a war a rayee ci maanaam ci image maanaam waru waratu noo génn ci image. parce que dañ leen ci parce tey am na ñu leen seetaan ñu naan diw moo nekk nii pourtant diw de léegi bi mu génnee yaramam bi ba léegi dafa am buzz. Mm. léegi buzz boobu noonu am na xaalis mi ngi mel nii léegi nag beneen xale bu ko gisee daal ne xaaral ma def loolu. Mm-hmm. bu defee loolu. mais yaakaar naa loolu moo baax. keneen ak keneen ak keneen def ko ay influenceurs lañ def benn benn affaire dafa am gis nga saa boo booy génn télé wala ngay def benn affaire. lu mat deux cent personnes wala trois cent personnes. dina seetaan mm. rek yow daanaka yow amatoo droit def lu yow amatoo droit def lu bon. parce que même boo nekkee ci boîte di fecc am na ñu lay filmer di ko génne. Mhm. même boo nekkee feneen a feneen di ko fecc mais. nit daan na fecc nit daan na fecc nit nit daan na way. Mhm. wala nit daan na def leneen leneen ak leneen te génneewul image am. Mhm. tasaare ko ci ci ci ci réseau mais tey def na lu baax parce que fecc fecc daa. lu ci foofu lañ ko mën a waxee parce que tamit affaire soo bi de pesa booy ci milieu boobu la ne. Mm-hmm. tey yow boîte bi di nga nekk boîte. toog ni jël sa benn volet wala sa benn butéelu falaak bu mool wala benn vin rouge wala benn pastis.